mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak Rewmi FM dal leen ak jàmm ci seen émission ànd aar aaru ni ñu ko baaxoo dimanche bu jot ci waxtu bi di ci ànd ak euh, ONG EMAD ak plan international jëm ba tey ci xeex mbas mi di coronavirus xam ngeen ni Sénégal tàmbali na juróom-ñaari weeru xeex ak feebar bi kon juróom-ñaari weer a ngi nii euh, wala juróom-benn weer ci li ñu génn ñuy dund ak doomu jàngoro ji. waaye lu mu yàgg-yàgg warta tax ñu bàyyeeku bañ bàyyeeku nag moo tax EMAD ak plan international jàpp ba léegi di soññ askan wi te itam xam ngeen ni ba ñu dooree programme bi di 3A ànd aar aaru ba léegi ñu ngi euh, jox kilifa yi kàddu ndax seen kàddu dafa am solo lool ci xeex bi euh, Sénégal euh, yàlla def muy réew moo xam ne ñu bari am na fu nu wékku ci këru diine yi kon këru diine yooyu itam faaw ñu cay dem di sàkku seen kàddu di jib tey nag moo waral ginnaaw xëy na Tiwaawan ak Yoff Laayeen ak feneen ak feneen fu nu jot a jaar ñu ñëw fii ci Ndakaaru ba tey ci njabootu Seydou Nourou Tall ñu gën ko xam ci mosquée omarienne ñu ngi toog ci bërëb bu sell bi macha allah di ñaanal ki fi tëdd yàlla yokku leer ci moom yeesal yërmande ñu war a sekk waxtaan nag ak imaam Aliou Sow euh, imam Aliou Sow nekk fii ci euh, jumaa ji euh, di fi jiite macha allah ñu war a sekk ak moom waxtaan imam ñu ngi lay nuyu asalaamaaleykum dalal ak jàmm ci ànd aar aaru. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi sant yàlla julli yonent bi sallallahu di leen ahlan wa wa marhaban ci bërëb bi. bërëb Cheikh na Umar Cheikh Umar Fouti radiallahu taala bërëb Seydi Saïda Nour bërëb mboole bërëb mboolem jullit ñu ngi leen si wax bisimilah dal leen ak jàmm jërëjëf imaam Aliou Sow mooy suñu gan ñu war fi tam fekk euh, al Ousseynou Ba euh, moom itam dëkk ci euh, gox bi teewal fi EMAD di point focal al Ousseynou ñu ngi lay nuyu am mbégte sekk ak yow aussi waxtaan ci ànd aar aaru waaw maa ngi leen di nuyu di leen ziar waaw di rafetlu émission bi yéen waa Rewmi FM parce que li ngeen def nii dafa am solo wàcc euh, si gox-goxaat yi dem gis kilifa diine yi maanaam lu am solo la boo gisee bërët bi ñu toog ñi ñu ngi ñaanal suñu tedd ñi ñi fi tëdd yal na leen yàlla yërëm waaw comme maanaam lu am solo la di kontaan di rafetlu bu baax a baax si émission bi. macha allah tey moom euh, na li ngeen def sax xamul leen ko ndax indi ñu ci bërëb bu ñu mel ñu toog fii euh, di wax foog naa ne daal yaakaar war naa mën a am euh, ci li nga xam ne moom ngeen sumba yéen plan ak EMAD jëm ci xeex mbas mi yow itam ñu lay nuyu di la ziar amaat mbégte ànd ak yow ci waxtaan bi. jërëjëf Fatou sama jigéen mbétti bi sax ma maa ko gën a am ndax macha allah ba ma waxtaanee ak Daxa Madani mu yabal ma ci Alioune Sow. dama ci kontaan lool na ñoon nañu yàgg a nekk ay partenaires EMAD ñu yàgg a ñëw EMAD ndax dañ naan dox benn programme boo xamante dañu ko tuddee woon lébu yi ak kilifa diine yi seen lëkkaloo donc foofu la ñu xamantee woon ñu dox ci lu sore sore sore sore nag kër gi nag nekk kër goo xamante ni euh, dafa marqué empreinte fii ci Ndakaaru waaw moo tax ba euh, ma waxtaan ak daxaa bu mu boolee ma imaam ñu ñëw toog fii ci kër gi dama ko ne woon sax buñ demoon sax ci kër gi wala ci ëtt ba fële baax na mais mu indi lii symbolique boo xamante ni bërëb bu ñaaykaan ñaay ñaanukaay la yaakaar naa ne fii ñu jot jaar yëpp lieu symbolique bu mel nii demaguñu fa waaw ñuy ñaan yàlla Euh, liñ fi wut si ak liñ fi dox ni yàlla nañu ko yàlla defar te incha allah am nañ ci yaakaar bu baax a baax mooy muyu bu baax imaam Alioune Sow man de am naa ci yaakaar ndax bañ jógee buntu kër Seydina Issa Rouhou Laye fii lañ ñëw ci bërëb bu sell bi euh, ci ndakaaru kon lépp lu ñu ñaan euh, surtout mbas mi jóge fee jàmm yàlla na ko yàlla nangu alors imam ni ñu ko baaxoo si waxtaan bu jot xam naa damay bàyyi waa EMAD ak plan ñu expliquer la un peu li nga xam ne moom mooy programme bi alxuseynu itam euh, xam naa dina ñëw ci li ñu jot a def ci rëbës ndax rëbës moom daanaka ci gox bi ngeen nekk kon baax na itam ñu yeggee leen li nga xam ne jot nañ ko liggéey laasana xanaa ma wëlbatiku njëkke ci yow euh, en tant que kilifa gi nga ñëw ak imaam tuuti ci li nga xam ne moom mooy leen tax a jóg ak li ngeen jot a def. waaw jërëjëf Fatou euh, ci rappel rek ni programme bi nga xamante ni bi mbas mi duggee Sénégal ñu am premier cas muy ci weeru mois de mars. Euh, ba son excellence le président de la république euh, Macky Sall euh, def état d'urgence woo kilifa yi woo employé waxtaan waxtaan ak ñoom ah donc mu nekk loo xamante ni lu diisoon la ndax état d'urgence ga yoon nañ ko xam depuis ay 88. voilà donc mu nekk loo xamante ni di tiital nit ñi te fi ñu toll nii jamono boobu ak média fu mu toll. yi déggoon li xew Italie ñaata dee fa am mag yooyu daal tiital nit ñu lool lool lool ba mu dugg ci Sénégal nag di premier cas mu sonnal nit ñi tiital nit ñi donc ci la suñu président Abdou Khader Gueye euh, gisee teg directeur plan international waxtaan ak moom ne ko jàngaro gi ñëw na nit ñi tiit nañu waaye doole yàlla doomu aadama la ko jox war ñu toog rek na sax di xaar war nañu fexe ba lu ñu yëngoo teg benn programme boo xamante ni vraiment dañuy yee askan wi parce que nit ñi mbir moom boo ko xamul rek doo mën a jàkkanteeg moom donc ñu waxtaan ci directeur plan directeur parrain d' accord ci ñu tëgg programme boo xamante ni en fait région de Dakar la yoo xamante dina ëmb juróom benn fukki quartier 60 quartiers fii ba Géejawaay donc dakaar la Pikine Géejawaay Mbaaw donc muy 60 quartiers yoo xamante ni ñu ne donc 60 quartiers yi lañ leen lëkkale quartier bu nekk ñu tànn fa fukki nit juróomi góor ak juróomi jigéen mais ña ñuy tànn ña ci ndaw ñi ëpp ndax directeur Pana danaan mbas mii kat ëllëgee ndaw ñi ñi nga ñi ko dund ñooy ëppal lañ koy nettali waaw moo tax ñu boole ci woon ndaw ñi ñu tàmbalee ko nag par formation ne donc ndaw ñi dana leen wàccee ci terrain bi ci gox-goxaan yi ñu waxtaan ak nit ñi xam nga nit moom balaa ngaa waxtaan moom ci ci ci jàngoro goo xamante ni bees la day laaj nga tàggat ko ñu dem seeti région médical bind gouverneur gouverneur joxe appui jox directive ñi nga xamante ni ñooy yëpp autorité administrative yi leen programme mu EMAD ak plan bat bii di ànd aar aaru ngir xeex jàngaree Covid tàmbale leen te dama bëgg ngeen dugal ci seen loxo ngeen jàppale leen donc ci noonu lañ tàmbalee def ay formation donc fii ci dakaar ñu def ko ak ñaay cokkeer ak rëbës ak Médina ak fukki penc yeeg ñaar yi nga xamante parce que bu naan dakaar rek dañ naan fukki penc yeeg ñaar lébu gi ah ñu yaatal ko bu baax a baax a baax a baax donc ci lañ tàmbali programme bi depuis boobu ba léegi programme bi nag muy formation ak joxe kit hygiénique kit hygiénique mooy dañuy dajale lu demee ni ki lavoir comme ne nañuy jàngoro bi mesure barrière yi bu ñuy kiiyee nañuy raxasu ba set nañuy laal gel ah nañuy takk masque ah gant sax boole nañ ko ci woon mais chauffeurs yi gënoon tax ñuy wax ñu ne donc loolu ñun amuñu moyen comme état état joxoon na ceeb. déwlin ak yooyu jàppale ko population ñu rafetlu ko bu baax a baax a baax ñu ne ñun ONG kat li ñu mën mooy fexe jàppale état parce que loolu mooy suñu liggéey jàppale ci état ci politique bi nga xamante nii daf koy def parce que moo ñu jox agrément ne ñu faire faire yaa ngi donc ñu def ay kit hygiénique kit bi mu ànd ak lavoir eau de javel saabu ay masque ah ak gel dimbalee ko quartier bu nekk ñu tànn 75 familles ñi nga xamante ni ñoo fa gën a néew doole ñu jeg leen leen loolu mu nekk jumtuwaay yi nga xamante ni danañ ko leen jëfandikoo ci biir euh, xeex Covid bi donc imaam loolu mooy ci tënk mooy programme bi ñu rax ci nag ne loolu du doy du tee danañ def ay convention ak taskatu xibaar yi ndax aujourd'hui xam na nañu taskatu xibaar role bi muy joué donc nañ def ay convention ñoom dem toog a waxtaan ak kilifa diini ak kilifa aada yi ndax fii Sénégal kat ku ci nekk da am foo tënku waaw laata administration di ñëw dafa fekk ñu tënku woon ci kilifa diini ak kilifa aada te loolu jógu fi ba tey te ci loolu la ñuy wéy moo tax bàyyiwu leen jiina bàyyi ñu leen ginnaaw ci loolu ñu nekk ñoo xamante ne ay avant-garde de ndax gis nañ ba mu tàmbalee kilifa diine yëpp dañ cee dugal seen loxo wax ci ñaax askan bi loolu daal ci gàttal imaam mooy programme bi nga xamante ni loolu lañ ciy def ma am lu tuddee ay caravane nee naa tey ci suba rek maa ngi jógee ba njaareem li maamu laay dañ doon def benn caravane de lancement zone boobu tamit Yamaat yegg na fa ak plan lancement caravane boo xamante ni naan les enfants nécessité ñi nga xamante ni ay xale yoo xam ne dañoo néew di doole seen jur yi nekkuñu fi plan di lañ jël en charge ñooñu lañ demoon def ak ñoom euh, lancement boo xamante ni caravane lay doon ak jox leen jumtukaay yooyu jërëjëf Fatou. jërëjëf na Sagna secretaire général bu EMAD am na solo imaam euh, Aliou Sow dégg nga programme bi ak euh, ni ñu ko tëggee xanaa ñu bàyyi la nga joxe ci sa gis-gis bu njëkk. Euh, xanaa di rafetu euh, liggéey bi Emad nga xam ne loolu nga tax me yee nit ñi di leen xamal li nekk ci mbir mi di leen si sant di leen gërëm ci loolu lu war la nag lu mel ni su fekkente ni ñëwoon ci réew ku nekk da nga war a fagaru nga taxaw sa kemtulaay kattan ñoom nag taxaw nañ seen kemtulaay kattan wane nañ seen euh, mënin ci fi ñu féete mu des nag xanaa askan bi ñoom tamit ñu respecté jëfe ndigal yi nga xam ne moom lañ leen di woo di leen si soññ di leen ko xamal di leen mooy di ko di leen ko moytandiku loolu moo ñu war moo leen war ñoom tamit askan bi moo leen ñoom def nañ seen dawru seen rôle mu des nit ñi def seen rôle ndax yoon dafa wax ne al wiqaaya xayru mina ilaaj fagaru moo gën faju gannaaw nag dem nañ ba affaire bi egg suñu réew comme ni egg si réew adduna yi yëpp bàyyiwul fenn mu ñëw ba egg Sénégal waa Sénégal tamit ñoom tamit ñoo war a def ñi nga xam ne moom moo leen war li nga xam ne moom la sallallahu alayhi wa jàngale moom la saxaaba mi jàngale moom na euh, ñëpp jàngale boo docteurs yi bi ñu defee seen biñ biñ euh, mbir mbir mi ñëwee ñoom tamit delloo nañ ci li nga xam ne moom la yoon bi sallallahu alayhi wa wax mooy geste barrières yi nañ sorante nañ takk ay masque kasa kasa bu dem ba ay jàkk ak jumaa tëj xam nga ni loolu tuutiwul ah loolu tuutiwul kon nag ñëpp nañ jéem a jëfee li nga xam ne moom la état bi wax moom la docteur yi wax moom la euh, adduna bi yëpp wax sax. jërëjëf Imaam am na solo xam naa dina ñu ñëwaat ci yow gën a xuus ci loolu waaye damay bàyyi Alxuseynu Ba mu mottali moom ñëw ci particularité Rebeuss ak li ñu fi jot a def taxawaay bi fi EMAD am gannaaw yow yaa fi point focal euh, yaa ñu gën a xëy na jekk euh, ci dikk ak ci li fi am ñu bàyyi la kàddu gi kon. waaw di kontaan lool ni ko sama naataango waxee. Euh, laasana am na solo mooy maanaam def na Genève bi yëpp quoi maanaam man point focal laa woon di rëbës bi ma emaat contacté daf ma ne utal ma ay ndaw fukki ndaw bi ma ko utalee fukki ndaw yooyu ci formation la ñu commencé bu mu formee ndaw yooyu noonu ba pare léegi dañ leen wàccee sur le terrain xale yi doon def sensibiliser dañ doon sensibiliser dugg ci famille yi ñooy xool famille yi nga xamante ne ñoo gën a nécessité bi ñuy recensé ba pare EMAD dafa wàcc ak ñun jox ñu ay kit kit yooyu noonu lañ doon distribuer famille même bu dee kit yi maanaam euh, soixante quinze chef de ménage lañ jot a recensé moom rëy na rëy boo xamante ne soixante quinze chef de ménage ëpp na mais bi xale yi wàccee si biir le terrain bi ñu daan dugg si kër yi ku nekk bëggoon na am mais dañ leen xamal ni programme bi plan international ak EMAD ñoo wàcc ah di jàppale si gox bi. waa seen doole yem. seen doole yem waaw. maanaam ñun ñu koy rafetlu parce que man bii mbas mi commencé ba léegi dama daan wax état bi dafa faussé communication bi communication mooy la solution mooy l' approche communautaire. wàcc si suuf parce que wàcc si suuf. parce que nu mu ko waxee xale yi ñooy nettali suba. lii am xale yi bi ñu leen woowee dañu leen xamal dañu war a si ci le milieu immédiat si sa kër d'abord sa kër ku nekk na doon responsable ci sa kër koo gis muy def naka sudul noonu nga yedd ko wax ak moom maanaam si travail boobu noonu lañ nekkoon bi ñu paree loolu ba distribuer kii yi wàcc nañ sur le terrain def contrôle ak veille xale yi ñoom ñoo doon wàcc di xool ndax ñi nga xamante ne distribué nañ est-ce que ñu ngi jëfandikoo ndax ñu ngi jëfandikoo kit yi ñu leen distribué ndax ñu ngi takk masque yooyu noonu yëpp waaw mu doon liggéey bi nga xamante ne dafa am solo quoi te plan yemul foofu noonu kon wàccaat na di def lii di def ay émission di wàcc ba kër diine yi kon loolu lu am solo la parce que tamit ñoom bu ñu si dugalee seen loxo rek maanaam affaire bi dafay gën a mbas mi daal dinañ ko mbas boo ko déggee waaw. jërëjëf Alxuseynu ñu ànd mbas mbas mi rek euh, nañu jéem bu yàggee yàlla mën na ci def ndam. Euh, imaam dañuy ñëwaat ci yow. ndax wax nga ko sànq euh, liy wane ne mbas mi ndawul mooy ba mu dikkee jàkka yi sax daf leen tëj ci noonu dañuy ñëw particularité wu euh, kër gi naka ngeen dundee mbas mi ak ba mu dikkee yéen yan mesure ngeen jël ci seen wàllu bopp. Euh, kër gi alhamdulilah rabbil alamin kaddu bi benn la bi nga xamante ne ñun laata gouvernement bi jël décret parce que jël nañ suñu matuwaay ba pare. fekk na kilif bi Cheikh Mouhamadul Madani xalifa bi mu ne gennaaw mbir mi nii la demee da di fexe ngeen tëj jumaa bi ngeen bàyyi julli waxtu salaatul xamsi ci biir mbir ku nekk na des këram bu ko defee ñu seet mbir mi fan lay mujj parce que dañoo defoon du yàgg kat ñu biñ ko defee nag muy yokku mu ne kon nag léegi képp koo xam ne yaa ngi doon ñëw fii ci kër gi di julli sax fii ci mbooloo mi mu yéeg jéggal nañ ne mën nga yem sa kër julleel sa néeg julli mbooloo sunna la waaye mbir mi su demee ni léegi dangeen di fexe ngeen uh, musal seen bopp musal ñi nga xam ne ñoo nekk ci bërëb bi bu anfusakum wa ahlikum musal leen seen bopp musal seen njaboot ngeen musal uh, ñépp bu ko defee ñëpp ñu dégg ndigal boobu jëfe ko ku nekk des fa nga nekkoon ñu bàyyi euh, circulation bàyyi jote bi en plus mu jox ñu ay gel mu jox ñu ay masque mu jox ñu lépp mu servir ko ñu distribuer lépp bi état bi ñëwee mottali lépp ñu commencé di ko jëfandikoo ba quelque temps ba jamono fii ñu nekk ni ñu seet beneen pexe ci julli korité bi fekkee te ne mbir mi ba léegi nii la demee jàkk yeeg juma yi ni leen tëjee woon léegi dañu seet beneen solution ñu seet ndax danañ si mën a julli waaye ak ay sart képp ku mote sart yi bismillah ku ko mënul dëkku jéggal na bul ñëw mooy lan na nga indi sa sajaada geste un mètre ci seen ci diggante kii yi na nga yore masque na nga soo ñëwee na nga raxasu bu kenn laal kenn bu kenn jege kenn noonu ngeen jullee ci korite gi tabaski bi itam noonu ngeen def tabaski bi noonu lañ def boobu ba léegi noonu lañ continuer di def noonu lañ ba léegi nii a ngi ko fiy def salawaatul xams commencé nañ ko julli juma commencé nañ julli mais ci ba léegi ci loolu lañ tënku loolu lañ bu weesoo loolu gis nañu kilifa diine yëpp kenn desul ginnaaw ñoom ñëpp ko ci ne dugal nga ci sa kàddu dugal nga ci itam sa doole ci euh, li nga am ci am am euh, est-ce que yéen am na ay euh, xëy na message wala soññi goo xam ne yéen a ngi koy def ci taalibe yi nga xam ne ñoo fi nekk ak ñi fiy ñëw di jaamu si yàlla ngir jàppee ko ci xeex bi ndax ku ci ne wàll ba nga féetee am na loo ca war a def. boo fii ci ñi fi nekk ci kii bi ñi fi nekk euh, am na ay ñi fi nekk ci biir spécialement pour loolu dañu heure bu nekk ñu ngi suñu fekkoon fi léegi ñu toog ni ñu toogee ni su dul lii ñuy def ni danañu. sensibiliser nañ ñu génne fi wala ñu sorente leen ñoom ñu ngi ñëw tout le temps ñu ngi fii ci toog ci buntu kër yi fa laa leen bàyyi dama leen tàggu léegi ne am na lu may lu ñu waxtaani ci biir raw di moo tax loolu moo tax xam naa ñooñu ba léegi ñu ngi ñu ngi leen contrôlé di leen kii xanaa xale yu ndaw yi nga xam ne daara moo fi nekk ñoom ñooy fanaan ñooy lekk ñoo lépp ñooñu xanaa ñooñu la ñu kii ñoom ñooy jaxasoo mais le reste ñu ngi fexe tout le temps ñuy sorewante di def ay masque yu demee noonu lépp lu ñu si di santaane daal ñu ngi koy jëfee lu ñu si tere ñu ngi koy jëfee walilahi alhamdu tey EMAD ak plan taxawaay bi ñu am boo amoon loo leen ciy dooleel euh, wala xëy na xelal leen ko ci lu ñu gën a mën a euh, yokk wala lu ñuy yeesal ngir mu gën a baax euh, lan lay nekk enfin ñoom de EMAD ñun yàgg nañu ak ñoom bi ñu commencé lu ñu commencé ak ñoom saa lu ñu xëpp lu ñu xewle lu suñu rôle war a nekk ci kii bi rek dinañu woo ñu teew xanaa di leen sant di leen gërëm di leen soññ ci liñ jàpp buñ ko bàyyi suñ mënul yokk buñ ko bàyyi suñ amee moyen pour yokk kanamit nañ ko yokk su fekkente ne am na keneen koo xam ne mën na leen yokk tamit dooleel leen li ñuy def ndax mu gën a rafet mu gën a mote na leen jàppale ci loolu almuhim ñu ngi taxu nit ñi di taxu population bi gannaaw fi mu wax yëpp jaar nañ boobu ba léegi bari na tuutiwul tuutiwul parce que Sénégal bi yëpp léegi mu daj wala Ndakaar moom léegi mu daj kon loolu tuutiwul kon ku leen mën a jàppale ci lu ñu lu ñuy continuer loolu na leen si jàppale ndax yàlla dimbali leen lii mu jóge fii ci réew mu jóge fii ci aduna bi yëpp ndax lii jàppoo ñëpp ñooy ànd liggéey doxandoo ko waxandoo ko mu mën a sotti yàlla na ko yàlla sotti. amiin am na solo Imaam euh, ci yow la des ndax euh, yéen la yàlla euh, teg place boo xam ne war ngeen di jàngale war ngeen di soññi war ngeen di waar war ngeen di fàttali tey jullit bi. nekk ci lu ni mel ndax gis nañu ne ba tey jii ñu toll nii juróom benn weer ginnaaw mbas mi am na ñoo xam ne gëmuñu ko am na ñoo xam ne mu noo fexe bañ takk masque am na munoo fexe bañ raxasu wala nañ daan dundee noonu la ñuy dundee ba tey ndax xëy na mbas mi dalagu leen wala jàpp nañu ne bu leen dalee ñoom du leen sonal ndax ay ndaw lañu wuuteeg mag ñi nga xam ne daanaka lam leen di baal néew na tey ñooña loo leen di dénk en tant que jullit diggante jullit ak moroomam ban taxawaay lañ war a am ci lu mel nii bu xewee. enfin loolu ñàkk xam la rek. ñoom dañoo ñàkk xam defe naa waaye war nañ xam ne mbas mi moo am na am na fi mu jógee ci siin di la wër adduna bi yëpp boo egg si fii kenn weddiwul ñu ngi kii war nañ xam ne loolu am na loolu am na te ndaw yooyu nga xam ne dañuy bañ a def masque wala di bañ a moytu def geste barrière nga xam ne loolu nañ santaane ñoo ñu ngi ci erreur parce que da ngay dellu sa kër su fekkente ne jël nga si mën nga wàll sa waa kër loolu coono boobu lépp àq la àq la yàlla loolu da nga tooñaange la ah tooña wattaqu fitnatan laa tusiibanna zaalimiina minkum xaassa aaya bi yóbbaale na ko moytu leen fitna boo xam ne day du yem ci ay du yem ci bopp boromam xam mooy loolu kon nag soo demee ne yóbbu nga yóbbu ko sa papa wala nga yóbbu ko sa maam wala nga yóbbu ko sa yaay wala nga sa sœur wala sa yu demee noonu yàlla xam ndax dana si génn wala du si génn yow yaay sabab bi loolu su fekkente ne yàlla des na si yow su fekkente am na nu muy demee sa des ci kaw suuf dana métti lool xalaat soo xalaatee loolu dana métti lool kon nag ñu ngi leen di ñaan ñoom ñi nga xam ne ñoo jëfewul loolu nañ moytu nañ moytu yàlla yàlla bëggul kuy tooñ te loolu tooñaange la tooñaange la tooñaange la bu fekkee lu mel ne état ah su décrété dara wax ci loolu wax loo xam ne li waxul lu bon lim def santaane bonul aayul jëfe ko moo gën te xam nga ñi am na si jëfe ko moo gën jëfe ko moo gën. léegi jullit bi ci wàllu boppam. adi wallahu adi wa rasul wa ulil amri minkum la yàlla wax na ngeen topp yàlla topp sala sallam ak ñi nga xam ne ñoo leen jiite na ngeen topp seen ndigal su fekkente feek digluñ leen loo xam ne nag yàlla def ko tere wala yoonam def ko tere ngeen jëfe lii yàlla tere bu ko yoonam bi tere au contraire nañ ko santaane dañ ko santaane moytu bi war a ko léegi jullit bi moom imaam ban gis-gis la war a am naka la war a dundee mbas mi ndax dañuy dégg ba mu dooree ba tey ñenn ne balaa la danoo war a dellu tuubal yàlla danoo war a dellu def lii dañoo war a dellu def lee lépp jëm ci diine jullit ci boppam bu xew-xew bu mel nii amee ban gis-gis la ko war am ak nan la ko war a dundee bon ñàkkul am na loo xam ne jullit yi wala adduna bi am na luñ def tooñ yàlla subhanahu yàlla dafa nekk ku muñ subhaanahu wa taala su dul muñ li ñuy def ci kaw suuf ak ñaawteef fekk na àdduna bi alax na ko jeex na waaye dafa muñ moom mooy sabuur muñ di seetaan jaamam yi ñuy jëf la nga su dul ci kaw suuf bi lu mu tere ñu koy jëfee mu bàyyi leen lii nag mu nattul ndax ñi nga xam ne ay jullit lañ ñu ragal yàlla bañ see ex wala ñi nga xam ne ñoo ko doon jëfee def lu ñaawteef yooyu ñu bàyyi ko ñu tuub dellu ci yàlla subhanahu wa taala xam ne lii subhanahu wa taala moom moo ko moom rek moo ko mën loo xam ne ñëw na doo ko gis doo lam ba daj ko te mën na suy egg si yow doo ko yëg doo ko tin ah loolu jundun min junudillah ci ay ay ay ay ay ay ay ay nga voilà armée yàlla boo xam ne moo ko yónni ci ci kaw suuf te nit ñi ñoo ko jëfee yàlla du tooñ kenn nit ñi ñooy tooñ seen tooñ ba seen bopp suñ tooñee seen bopp ñooy tooñ yàlla bu ko defee yàlla subhanahu wa taala nag mën na mën na leen woon kattanam mën na leen woon def loolu ndax ñu ragal dellu ci moom tabaraka wa suñ delloo ci moom nag ñu jéggalu tuub dellu ci moom subhanahu wa taala dans ce nañu jéggal dindil ñu fi lii mu jële ko ba faw yàlla na ko fi yàlla jële yaa nabil Mustafa sallallahu alayhi bëggoon a génne rek mooy wone ni tuub gi xëy na nag ko kilifa yi waxee ci solution yi la bokk raxasu takk masque waaye itam tuub dellu ci yàlla. ndax loola yëpp ñu ko defee it mën naa am taxul jàngoro ji jóge fi. ka ko fi indi wala li ko fi indi rek moo ko fi mën a jëlee. kon ñu delluwaat xëy na euh, tuubaat ni ko imaam waxee. léegi dañuy dellu si ci jàngoro ji xëy na ñi ngay sensibiliser état mi ngi wax EMAD ak plan international ñi ngi wax waaye ñàkkul xëy na loo xam ne imaam bëgg nga koo xam ci jàngoro ji gannaaw ñii ñoom itam dañu ci sensibiliser te yéen ay porte-voix ngeen da ngeen di wax ak ki mbooloo bu fekkee am na loo xam ne yaa ngi koy dégg ci mbas mi wala ci doomu jàngoro ji bëgg kaa leerlu ngir gën a mën a jàllale ay xibaar wala sensibilisation euh, nga yëkkati ko rek lancé na xëy na di ciy leeral bu am bon xam nga toujours nit ñi dañuy ñaan dañuy toog di waxtaan di dañ ñëw ci naan di laaj loo xam ne dem ca mbas la xëy na yaakaar na ñun ñoo la si ëpp xam-xam wala ñoo si ëpp expérience te dañuy laaj toujours est-ce que lim yi nga xam ne moom lay joxe ci monde bi ña ko am est-ce que loolu dëgg la est-ce que du dañuy tiital nit ñi rek am na ñuy laaj loolu. ñuy laaj loolu insiste ci loolu. ma doon wax na su fekkee ne loolu dañuy tiital nit ñi wala waxuñu def nañ erreur parce que su fekkente ne wax yàlla bëggul nit mu wax loo xam ne amul. yàlla def ko tere loolu fen la te yàlla bëggul kuy fen te su fekkee dañ koy def pour tiital ni yàlla bëggul kuy tiital doomu aadama julli rawatina julliti julli du tiital moroom julli dañ ko tere ci islam euh, li loolu jaaxal na leen ma doon laaj nag est-ce que loolu am na walla amul dañuy tiital nit ñi wala lim bi ñuy wax exact noonu la ak li muy faat est-ce que exact noonu la su fekkente ne loolu la nit ñi war nañ jóg ci seen bopp war nañ moytandiku war nañ respecter liñ leen di wax ñu jëfe ko ñun ala kulli haalin tout le temps suñu taxawal julli imaam dana wax wax leen ak mbooloo mi nañ jëfee li nga xam ne moom lañ santaane ba ñu génn jumaa bi fu waaye suñ génnee jumaa bi ngeen góorgóorlu ci liñ leen di dénk ngeen tënku si suñ génnee nag yaa xam loolu ci biir biir kër moom lim yi ñuy dégg laaj la buy faral di dellusi ci ñoom te xëy na seen position euh, xëy na toppatawuñu yenn mbir yu bari yi ba mën a joxe ay firnde euh, ci yooyu laaj bu dee am na loo ko ci mën a indil comme leeral waaw jërëjëf Fatou imaam wax na dëgg ndax euh, lim gi muy wax noonu ni mu koy tiitalee ñoom ñun ñii di ko suivre it noonu la ñuy tiitalee day dem ba sax da nga léeg-léeg da nga seetaan télé ci euh, émission extérieure yi demee ni ay yeneen pas publicité ay France 24 ak yooyu mais da ngay gis ni dañuy woo ñaari borom xam-xam mais duñu ànd ci benn kàddu kii day wax lii kii wax lële xam nga yooyu bu fekkente ni yow sa xam-xam màccul ci loolu day indi jiixi jaaxa sa bopp bëgg na bëgg nga suñ lay wax ñu wax loolu leer même ci fii Sénégal ci chiffres yi ñu joxe am na ñu ko contesté mais ñeen ñi dañ ne comme euh, Institut Pasteur mu ngi fii dañ ko avaliser OMS daf ko avaliser donc Institut Pasteur li mu wax lépp dëgg la waaw mais da ngay gis fii c'est malheureux mais da ngay gis fii ñaari médecins yi ñuy invité télé kii wax lii kiy wax lii. te foofu nag ma leeral ne xëy na polémique bi ñoom dañuy wax ne sax li ñuy wax ci lim dafa tuuti par ak li am ku mel ni docteur Babacar Niang bu moom boo ko déggee def naan la li am dëgg waxuñu la ko te itam li ñuy def ci ay test néew na néew na néew goo xam ne xëy na mënoo natt ñi feebar ñëpp waaye fii ci Sénégal moom li ñuy dégg ñu ci werante mooy ne li ñuy wax néew na lool par rapport ak réalité bi voilà kon mu wane ne it ba tey rek war nañoo wéy di moytu. waaw ba tey ba tey ci ci même lim bi boo xoolee par exemple euh, instant bi nga xamante ni euh, dinañu frontière yi espace Schengen dañoo refusé woon Sénégal ci loolu. te li dafa bëri woon. ca suñuy cas dafa bëri woon parce que ñoom dañ naan Sénégal dëgg-dëgg waxu leen cas yi ngeen am. li ngeen wax néew na ëpp na foofu loolu mooy seen kii. tey jii parce que démboo Ndiaye ñu ngi waxante Gambie. Gambie bu yàggul ay vingt cas la am mais da ngay jékki-jékki ñu ne la Gambie ni fa feebar bi def ci gaawaay amul benn réew Afrique bu mu def lool ba ñu woote wàllu Sénégal ba ñu woote wàllu Sénégal te commencement bi boo laajee Gambien yi fa nekk nañ ñun am nañ ci ay mbokk yu fa ne mais dañ naan laaj yow foofu Gambie lan la def lan la état bi def ñu ne ku nekk daa sa kër ngay def ñoom daal feebar yëgaluñ ko seen bopp jàpp nañu daal bu fa duggee Sénégal yee fa dugal. loolu lañ jàppoon ba seen président waxoon loolu ni premier cas deuxième cas yi jëfam ay sénégalais lañ suñu mbokk saalum saalum ñu fay transité xam nga baana baana yi ñoo ko fa indi. waaye feebar bi fi ñu toll nii. jaaxal na leen jaaxal na leen jaaxal na waa Gambie de même que Mali. amoon na loolu Mauritanie demoon nañ ban naan amul ay cas. mais ñu jékki-jékki rek cas yi kii. donc il faut ñuy ñuy xool suñu suñu kilifa yi nga xamante ni ñooy ci wàllu. wér yaram ñu am benn ñu doyloo leen et puis ñu am benn kàddu. et puis ñuy jox kàddu gi ñi nga xamante ni seen xam-xam màcc na ci loolu dafa am ay infectiologue ay virologue yooyu ñaakaar naa ni infectiologue bi virologue bi lu mu mën a wax ci feebar bi généraliste bi mënu koo wax il faut aussi ñu bàyyee loolu ñun ñi nga xamante ni ñun ay ay ay ay ay santé communautaire la ñuy wax ñun dañuy sensibiliser donc liñ ñuy jox ci information information boobu la ñuy wàcce waaye bu fekkee dañuy jox information contradictoire bu mënoo am lim exactement des jours kii bu waxee li kii waxee li yow finalement doo am ban tànk ngay taxawee day dem ba ñi ngay waxal sax looloo xew ci réew mi ah waaw dañuy wax lu leen neex rek ñàkk gëm gi donc loolu aussi muy un appel bu ñuy lancé ne vraiment ak gouvernement bi ak li mu ciy wax yëpp mais ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci loolu dañuy fexe ba dëgg contradiction du ñàkk mais na néew lool mais ñu wax nit ñi réalité bi tax ñu am ah xalifa général des Tidianes wax na ko nee nañ nañ wax nit ñi lii am buñ leen nëbb nëbb bu leen làq-làq bu mbir ñëwee waxal ni mu mel lan la waaw parce que boo ko làqee rek bu ëllëgee day feeñ ak loo ci jublu nag bu fekkente da nga naan su ma ko waxee gaañ ragal ak nangam nangam bu ëllëg bu feeñee rek même bu fekkente ni da nga ko jublu woon ngir aar sa population dañ naan li ngay wax du dëgg waaw loolu dootuñu la gëm moo tax wax dëgg am solo ni ko imaam waxee euh, yaakaar naa ne kon imaam noona la ñu ko mën a jàppe waaye daal ñenn ñi ñu ci bari di ay borom xam-xam itam yoo xam ne ñëpp ràññee nañ seen xam-xam dañu jàpp ne Sénégal li muy def ci test bu ko yokkoon rek kaa yi yokk ndax yeneen dëkk yi ngay dégg kaa yu baree baree bari loolu la ñuy def ci test Sénégal deful sax xaaj-xaajaat ba ñoo ñu ëpp li ñuy def test te itam eh, jàngoro ji mën naa ne ci yow te doo ko xam hmm. kon bu ñu testé woon ñëpp rek xëy na man mi sax ñu ma testé hmm. woon eh, fekk maa ngeeg moom loolu itam moo tax takk masque gi am solo ndax bu ma ko amee it yàlla mën naa def ba duma leen ca wàll ndax takk nañu masque jéem nañu dandante eh, li ñu ci mën hmm. xanaa bu fekkee am na beneen laaj wala lu ko mooy looy dolli ci askan wi gannaaw xibaar yi ñu la fi jot a jox ci test yeeg lim yeek werante gi ci am bon askan bi de li ma leen di dolli rek xanaa di leen soññ di leen ñaax ñu gën a góorgóorlu ci respecté ak jëfe li nga xam ne moom la santé bi santaane ñi nga xam ne ñoo si féete ñoom leen seen xam-xam màcc jëm ci mbir mi lañ santaane lañ si tënku ñoom lañ si tënku parce que ñoom ñoo yore kàddu gi ñoom ñoo xam danger bi si nekk ñoom ñoo ko xam ñun xamuñu ko dañuy góorgóorlu moytu loolu xuzu hisrakum dañ ko war a jëfe jàpp leen seen motuwaay ngeen moom moytu ngeen moytandiku. seen kéemtalaay kattan feebar am na sax feebar bi ñàkk ko day jafe. du ñàkk gaa. mais ñàkk ko gëm mu am na ne loolu day jafe loolu léegi. Mm-hmm. parce que gis nañ gisaat xanaa nga laale sa su fekkente ne yow muy loo laale sa bopp loxo rek wala loo gisee sa uh, kii rek. ngay gëm su kon soo xanaa kon duñ gëm yàlla kon. waaw <laughs> ah, yàlla nañu yàlla musal ci loolu. soo gisee gëm yàlla kay am na lu tax. am na ñoo xam ne ñooñu. Ah, indi kii léegi riwaaya indi ci ba jële ko ci yonent mm-hmm. ba ñu ba mu egsi ñu mën koo kii mais su fekkente ne loolu ñaanuñu ko yàlla gisee ko bët wala lambe lox loolu ñaanuñu ko yàlla population nañ góorgóorlu ci seen biir mooy tundiku mooy tundiku ah, amoon na ci jamono mar bun As dafa wax ne bi mbir mi taree dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg nga xam mënuñu leen ki mm-hmm. tafarraqu wa tajabbalu na ngeen tasaaru mooy tundiku sorewante ngeen ku ku nekk fa nga nekk na fa des mel ne xeer bul bouger rester sa vous boobu fa la depuis boobu la commencé wala lu ko jiitu waaye boobu bokk na ci loo xam ne bu ko gën a beesalaat na ngeen soree na ngeen dandoo tasaaru kenn bu leen nekk am mbooloo moo tax ñi nga xam ne ñu ngi organiser ay mbooloo yu demee noonu ñu ngi def loo xam ne xamuñu ko te waroon nañ roy ci kii bu dëggul kàddu boobu ñu jëfe ko ndax saxaabi yi wala taabi moo ko wax koo xam ne naka sala sallam wax loolu war nga jëfe kàddoom doonte da bëggoon organiser mbooloo soo fàttali ko loolu wala soo déggee loolu war nga jëf ndax loolu ci ci ci ci dëgg dëgg la bokk képp kuy dëgg nag soo war nga jiital bu yàlla subhanahu wa taala ak bu sallallahu alayhi ak ñi xam ne ñooy sahaabam yi yooyu nga war a jiital ba indi nag ndigal keneen teg wala ak sa loo gëm nit ki ñooñu su fekkee wax nañu seen wax lañu ñu tënk ñu war jëfe la ñu santaane woon bu ko defee réussite am na ci jamono boobu te jamono bii gëm naa ne suñ ko defoon rek réussite day am ci li nga xam ne moom la ñu bëgg la moom la ñuy dox moom la ñuy sonn guddeeg bëccëg yàlla na yàlla defar réussite ci li ñuy dox la yaa ngi solo ñu ngi koy wax ci ndoxteel gi euh, génn nañu ci juróom benn weer fi mu ne ñu ngi dugg nañu ci juróom ñaareelu weer boo xam ne ñu dund ak mbas mi doomu aadama ci boppam lañ xamee gaaw a taay yi xëy na ba muy doog a door ñu bari farlu woon nañu di raxasoo ko def yëf waaye ba mu yàggee tuuti ñu commencé taay yi di bàyyeeku fi mu ne nii nu muy gën a yàgg xëy na ñuy gën di bàyyeeku est-ce que ci wàll woowu am na lu ci islam santaane wala loo ciy ñaax jullit ñi ci taxawaay buñ ci war a am ak lu mu yàgg-yàgg feeg mbas mi jeexul waruñu tayyi waruñu yàqamti waruñu sonn dañ ko war a lépp lu ñu leen jëfe ci début bi bu léegi dañu war a continuer takku si jëfe ko wala dolli sax seen fagaruwaay gën a fagaru ndaxte mu ngi yokku gannaaw mu ngi yokku nag lépp loo doon moytu da nga war a dolli moytandiku nga si moytandiku nag yemul ci yow kenn rek fexeel képp koo xam ne yaa ngi ko tiim di ko diggal di ko tere fexeel moom tam mu mel na nga mel mu moytandiku waaye yow rek nga takk sa mas sa biir kër toog sa biir kër njaboot bi yëpp gën dem ci mbedd mi nekk ñu ngi ci ci milieu yi su ñëwaatee fekk la foofu loolu du moytandiku loolu des na des na. borom kër yi war nañ gën a fagaru wax a seen njaboot tout le temps wax a seen njaboot surtout xale yu ndaw yi parce que dañoo defee ne xale yu ndaw yi ñoom suñ si duggee rek dañ si génn wala duñ si dugg loolu wóorul. xale yi ndaw ñooy problème euh, bi problème bi dana mat gën a dem foofu laxasu seen maam yi mel ni yow ak ñeneen waaw ñoom bu ñu ñëwee rek ci maam yi lañ jëm ñu ndaw ñi mm-hmm. buñ donc ñooñu sax lañ war a gën a aar au contraire parce que bu ñu génnee xëy na mënuñu sàmm seen bopp dañu takk masque dugg raxasu bi xëy na lu néew lay doon ci xamuñu sax fu ñuy suñ génnee sax xamuñu fu ñuy yem xamme duñu seetlu dara ñoom amuñu seen xel nekku ga nekku si gaa ñoom suñ génnee tënkuñu fenn mais fexeel ba bu ñu génn wala suñu génnee ne yàlla na fekk farata moo tax ñu génn mun ta ñàkk ñu dem ko bu jamono bi passé su jamono bi passé ñu dellu fañ nekkoon démb ak barki démb voilà partout partout moom moom la feebar loo xam ne mm. bàyyiwul patron bàyyiwul ah, miskin bàyyiwul kilifa bàyyiwul ku ñu yilif moom moom xamewul kenn loolu mooy danger moo tax euh, nu nit mën def rek pour mu jóge fi na ko jëfee noonu lépp lu docteur yi santaane nañ si tënku ñoom ñoo xam mbir mi ñun xamuñu mbir mi dañu làmbatu rek waaye ñoom ñooñ si ëpp xam-xam ñoo ngi xam ne jàng nañ ko jërëjëf mbokk yi seen émission ànd r aaru ngeen di teewlu ci réew mi FM tey ñu ñëw fii euh, ci njabootu Seydou Nourou Tall euh, ci ndakaaru ci corniche bi euh, sekk waxtaan ak imam Aliou Sow moom ngeen doon dégg noonu di jiite ci bërëb bi ànd itam ak Lassana Sagna di secretaire général bu EMAD ak Alxuseynu Ba di point focal bu fii ci Rëbës Alxuseynu damay ñëwaat ci yow ndax waxtaan wi yëpp dégg nga ko ak tout le temps sax bu ñuy wax jeunes yi la ñuy gën di waxal ndax ñoom xëy na kattan waa ngi fii wér gaa ngi fi mën nañoo dékku yu bari am na ci ñenn da leen di dal ba ñu wér te duñu ko sax xëy na yëg to soj la ñuy sentir wala yu ndaw ndawaan yoo xam ne ñàkkul miin nañu ko ci seen yaram mais problème bi mooy bu ngeen delloo ca kër ya yaay yi ngeen fay fekk jigéen ñi ñi wéradi ñi ak ñi nga xam ne ñooy euh, mag ñi alors sa moromu jeunes yi lan nga leen di dénk ak surtout bi nga wàccee ci terrain bi lan nga fa gis ak ban euh, changement ngeen indi ginnaaw seen sensibilisation bi merci bi ñu wàccee ci terrain bi doon liggéey bi nga xamante ne dafa metti woon lool parce que pour sensibiliser jeunes yi jeunes yi pour ñoom ñu bëri comme ni ko ni nga ko posé sans question ñu bëri dañ jàpp ni feebar bi amul dañ koy politiquer léegi pour convaincre leen il faut nga yor ay argument yi nga xamante ne dafa solide parce que tey jii ci communication bi ñi nga xamante ne ñoo ñu jiite bu ñuy communiquer dañu war a wàcc nga fekk ci nit ki. maanaam si làngam si làngam nga ko mën a jàngalee mu gën a gaaw di def ay sketch yoo xamante ne xale yi euh, xale yi bu ñu ko seetaanee dinañ si gën a bàyyi xel mais saa bu ñu communiquer dañ ñu waxal nasaraan ki te ñu bëri si Sénégal bu ñu xoolee seen njàng soriwul moo tax ñoom dañuy jàpp ni rek dañ koy politiquer te tamit ku xam feebar xam virus ak microbe du benn waaw. parce que bu dee microbe moom xam nañu nu mu demee mais bu dee virus mitation bu muy def moo tax docteur yu bëri bu ñu leen invité kii day wax aw nii kii wax aw nii maanaam li ñu waxoon début ci feebar bi yëpp tey dañu yeewu suba mu ndaw leneen mu doon loo xamante ne dafa doy waar kon feebar xëyee lu bees ñëw saa boo xëyee mu am lu bees dañu waxoon du jàpp xale te mu ngi noonu day jàpp xale loolu noonu yëpp gis nañ ko mu doon dañ doon wax du jàpp nit ñuul ndax mu doon loo xamante ne dafa doy waar moo tax mu dem ba nga xamante ne ñenn gëmatuñ ko parce que dañuy jàpp ni dañ koy politiquer si loolu moo tax ñun bi ñu wàccee sur le terrain dafa doonoon loo xamante ne dama woon ak ay ndaw ay xale yu ndaw yoo xamante ne EMAD ak plan international ñu leen di jaajëf bu baax si formation bi ñuy jox parce que bi ñu wàccee sur le terrain gis naa ni formation bi am na njëriñ waaw parce que ñenn ñi mécaniciens yeeg yenn bërëb bu liggéeykaay boo leen waxee ñoom faralu ñu di takk masque parce que ñenn ñu bëri dañ lay wax ni daf may fàtt waaw ana ko daf lay fàtt ah, ba nga nar a lor doomu jàmbur ci mi ah xoolaatal defa defe naa ni daal sensibilisation bi jot na am njëriñ parce que même bu dee touché wuñu amuñu 100 pour cent ñenn ñëpp jeunes yëpp mais am na ñi nga xamante ne jot nañ leen sensibiliser ba ñu commencé xam ni feebar bi dëgg la lu am la waaw. nañu gën a nañu gën a daal di bàyyiwaat xel daal waaw que bu ñu respecté mesure barrière yi rek je pense que feebar bi moom pour mbas ko dina gën a yomb quoi. Euh, masque bi fatt la moo gën yaakaar naa nga feebar sax yow ci sa bopp bari ma hôpital di fatt ndax ñi ñuy gis ay machine di leen dimbale pour ñu yi te daanaka ñu ci bari fa la ñuy jaaree ñàkk seen bakkan loolu aussi mën nañ ko cee dolli donc masque bi lu mu la fatt fatt mën nga koo supporter boo jéemee euh, góorgóorlu ci rek euh, mën naa am nga adapté wu ci xëy na na ñu ñëw ci yow boo amee looy dolli ci message bi Alxuseynu wax na ni mu gisee jeunes yi ci terrain bi ñu bari gëmuñu ko yow aussi tout le temps yaa ngi ci terrain bi di wàcc di wax ak askan wi que gis nga ne niveau bi yéeg na par rapport ak liggéey bi état jot a def ak yéen acteur communautaires yi par rapport ak jàngoro jeeg ni ko nit ñi di gisee. waaw jërëjëf Fatou euh, ni ko Al Ousseynou waxee dëgg la euh, yëg nañ ci suñu liggéey ba ñu tàmbalee résultat yi ñu amoon ak fi ñu yegg nii gëm nañ ñi population yi ak bi ci kilifa yi dugalee seen seen loxo yëg nañ ni population yi commencé nañu am conscience léegi. ndax boo seetlu boo fàttalikoo rek bi président defee deuxième sortie wala troisième sortie ba bàyyi état d'urgence bi mm. ba ne jàkka yi waaw nañ ko ubbiwaat ah jàkka yi omarienne grand mosquée ak laayeen bokk na ci jàkka yoo xamante nii ñoo bañoon a ubbeeku ba ci Tiwaawan donc boo demoon par exemple grande mosquée imam Pape Samba doon wax ni Dakar moo ëpp ay kaa mm-hmm. ba léegi sax ba donc ñun suñu jumaa yi bokkut ak jumaa yi Euh, euh, yeneen gox yi ñun fu ne la nit di ñëw julli si fii boo fi ñëwee àjjuma 10 heure ci suba lay tàmbalee xat ba heure julli donc nit ñooñu affluence boobu mënoo leen contenir mais bu demee ba kilifa gi jël décision bu toll noonu ak bërëb bii lu mu représenté ci communité bi ñu ne dañ koy tëj boo nekkee ak taalibe xalaat tuuti di xam ne lu yëfu jaaxaan donc ñu bëri loolu moo leen gën a conscientiser te sénégalais xam nga dafa fonk événement lu toll ni que tabaski wala lu toll ni que euh, ziar mu war a jot nga fomm ko ndax bés bi ndax feebar bi mm-hmm. day marqué ñu ko fekkee day marqué ci ñu naan ah lu musul am kat am na mm-hmm. kon war naa jekkalaat sama toogaay ci sama taxawaay loolu message yooyu après nga teg ci xalif généraux yi di wax mm-hmm. seeni message ñu koy jàllale te aujourd'hui xam nga bu njëkkoon commencement bi dañ doon génnee ay ay whatsapp ay yoo xamante ni day yàq liggéey bi bi ñu gisee ñu dem ci xalif général interviewé ko génnee ko yow li ñuy def nii rajo bi nga di ko déglu kilifa wax ah wala mu yabal nit ko am baat mu wax nga dégg ko loolu nag bokk na ci di conscientiser sénégalais yi ba sénégalais yi aujourd'hui ñu ngi delluwaat di conscientiser wu je donne un exemple très simple tey jii ñu ngi waajal màggalu Touba. ak polémique bi ci am yëpp mais xoolal temps yi image bi ñuy génne dañuy wane xalif général bi mu sol masque. Mm-hmm. ñu ko wër ñëpp sol masque message boobu mooy la mm-hmm. ah waaye ngal la boo gisee xalif général bi di aar boppam. yow mii taalibe war ngaa mën a aar sa bopp dañoo gis imaam Aliou Sow di takk masque. te ku ne xam na ne takk masque di wax yombul. donc gannaaw moom mii sa kilifa moom moo teg loolu yow bu fekkee ne danga nga koo jàppee ngir sa wor war royuwaay war ngaa mën a taxawee loolu. yàlla moo wax wa lakum fi rasulillahi iswatan al ulama warasatul anba ñoom kilifa diini yooyu ñoom ñoo fi wutu yonent yi sallallahu alayhi wa sallam te yàlla na sal yàlla tabaraka nee na yonent bi sallallahu alayhi wa ci moom ngeen roye ñeel na leen royukaay kon nag gannaaw sallallahu alayhi mooy suñu royukaay sallallahu alayhi wa sallam ne ko fi ñi ko remplacé ñi ko wuutu mooy borom xam-xam yi ñoo ko wutu kon nag ñooñu suñu jëfee mbir war na sunna la ñu jëfee ko ñun ñëpp sunna la ñu jëfee ko ñun ñëpp ci ñoom di ci loolu rek vraiment taxawaay bi nga xamante ni suñu kilifa diine yi am nañ ko muy ay message yu fort yoo xamante ni vraiment marqué na askan bi comme ni nga ko waxee képp kuy jullit képp kuy croyant ba ci ba demee ba bi mm-hmm. ci église bi la gën a foore ñoom dañ ko ñoom kay lépp lañ teg tëj ba léegi ah lépp lañ teg ci suuf loolu la ku ko xamoon Popenguine mm-hmm. ni mu daan mel mm-hmm. fommuñu ko ak leneen ak leneen pak jaar na fi mel na ni pak amul donc loolu ça va rester dans la conscience des personne su rawatina ndaw yi nga xamante ni ñu ngi toll ci jamono waroon nañu loolu donc loolu vraiment eh, di jaajëfal vraiment imam Alioune Sow ci woyofam parce que wax na ko yàgg naa ñëw Emar yàgg na ñëw lëkkaloog moom ci seen woyof mais nii rek la ñu mën a def parce que ay nitu diine lañ ay éducateur lañ ay defarkatu nit lañ di leen sant di leen gërëm en dollar lui xalif général beeg imam bi ñu ko ji yëpp nuyu bu baax sama xarit euh, daxaasaal ah moom laa faral moom laa gën a yàpp hmm. waaw moom laa gën a yàpp waaw chaque fois moom laay woo di ko sonnal di euh, jaajëfal baax a baax euh, Al ci hmm. liggéey bi ñuy liggéey ci rëbës ndax rëbës c'est des quartiers hmm. waaw rëbës melting pot la xeet yëpp a nga fa rëbës ñaay cokkeer non euh, Sénégal la waaw xeet yëpp a ngi fa te Afrique la te gis ngeen ne eh, eh, am na xëy na avancé bu ngeen gis. ci liggéey baax a baax bàyyi ba kii au départ Rebeuss dekkoon na ci quartier résidence bi amee benn ñaar am na sax ku ko amoon koo xamante ni dafa dañ ko daan joxoñ yoo jor waaye kii moo ko fi indi corona bi <laughs> ah am ñoo xamante ni ay résistants lañ mais léegi aujourd'hui les populations sont conscientisées nit ñi dañu ànd ak dal. am nañ ci beneen gis-gis. beneen gis-gis te loolu moo ko waral ku gisee ku mel na Al Ousseynou mu ciy dox du ci wax. li ci dox di ci wax di ci dox di ci wax nit ñi duñ jóg ci neen et ñuy teg seen bët gis mu benn famille kenn ku ko am ñu jóg buub leen ñoom ñëpp yóbbu leen mm-hmm. bës nga laajte ñu ne ñu ne ah ñii kat am nañ finalement boo doon dem tout droit ca kër ga da ngay jàdd mm-hmm. waaw loolu nag yooyu bokk na ci delloo conscience nit ñi yi mun a accepter feebar bi li ci des nag mooy lancer message autorité yi waaw bu ñu bàyyi seen loxo gis nañu temps yi passé yëpp ñu naan mbir mi mu ngi wàcc mbir mu ngi wàcc mais ci virologue yi nee nañu virus toujours noonu lay demee day dem ba benn jamono mu wàcc ba nga ko yaakaare jékki-jékki rek mu yéegati waaw donc moment bi waruñu yaafus waruñu nasax. ni ma ko waxee sànq nit dafa gaaw a tàyyi bu kiiwee nga ne ah affaire bi dafa soof lii dafa yàgg xanaa du jeex rek tàmbalee dellu ca lañ ne woon da nga koy dégg. Sénégal moom Sénégal jàpp tëbaay lu jafe ci sénégalais la. waaw parce que dañuy jàpp rek mbir mi du ma daal keneen lay daal. bëreet daal lañ am début bi moom ñëpp ci ànd. waaye xam naa léegi nit ñi commencé nañu changé bu baax a baax a baax te yàlla yàlla yàlla jëm kanam. amiin Al Ousseynou Lassana souligné na benn euh, point bu am solo muy stigmatisation bi joxoñante bi. xam nga demoon na ba tax ñenn ñu yëgee dara seen yaram sax dañuy ragal a dem ndax dangay gis kër ñu naan fee kër corona la ñëpp di leen daw te feebar bi bàyyiwul kenn donc stigmatisation boobu ñoom docteurs yi sax ku mel ni professeur Moussa Seydi waxoon na clairement ne boo gisee cas grave yi yokku ñenn dañuy feebar waaye dañuy ragal a génn seen kër dem ñu ne kii am na ko bu ko defee ñoom ñëpp ñu leen di daw dangay gis ku wér sax am na ku def témoignage ne moom ba mu wéree sax ba dugg ca boutique ba daa dugg rek ñëpp daw xam nga loolu itam day yokk feebar bi day yokk problème bi est-ce que fii Rebeuss am ngeen genre situation yooyu waaw bi daal biir Rebeuss noonu la demee woon waaw am na côté boo xamante ne da nga fay bëgg a romb sax gars yi nee la ah bur aw fii nii waaw fii côté bii dafa am ku fi am corona mais li ñu dindee loolu noonu plan international ak EMAD ñoo ñu jàppale pour loolu noonu mën a dem nan léegi nag bi ñu formé si seen doom yi lañ jël seen sët ñoom laa dem jëli ay xale yoo xamante ne ay élèves lañu ma jël leen dugal leen si formation bi ñoom ñoo doon sensibiliser seen waa kër di sensibiliser waa koñ bi. si lañ commencé gis ay xale yu ndaw di wàcc sur le terrain affaire bi daleen jaaxal parce que gars yi dañ leen joxoon ay yëre yoo xamante ne ay Lacoste ak yooyu noonu danga leen di xàmmee ñuy wàcc ba si biir kër yi ñenn parents yi sax dañu doon interpeller di ngeen li ngeen di def nii est-ce que wóor nga est-ce que jëm ngeen jël ngeen seen motuwaay ak yooyu na ma ne ñi ne ko ñun ñooy doomu gox bi ce sont les gens du quartier qui défendent leur quartier bu ñu deful nii maanaam quartier bi kon kenn du ko kii bii xale yi commencé wàcc si terrain bi si lañ commencé gis ñenn ñi sax ñame aw foofu noonu parce que bi ñu gisee ni ñuy dugg si biir quartier bi di dugg ba si biir kër googu noonu si la ñu commencé xam ne nag kon affaire bi daal jël sa matuwaay boo jëlee sa matuwaay yenn yi daal du la mën a dal quoi mu doon loo xamante ne tamit ñu ngi koy rafetlu si plan international ak EMAD nu ñu ànd lëkkaloo parce que si approche communautaire bi mu doon loo xamante ne lu am solo la waaw. imaam foofu itam dinaa ñëwaat ci yow ndax ni ñu koy faral di waxee islaam bàyyiwul dara lépp la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale al quran aussi situation yëpp la prévoir euh, tey jàngoro ji ni mu demee mooy tontee waaw ndax moo lay tax a mucc ci benn boor waaye warut a tax dawante wala boddikonte ndax ka ngay daw mën naa am yéen a jàngoro ji mën na fee jóge waaye ëllëg relation yi day des te bu boobaa it am na yoo xam ne euh, ci wàllu social mën na koo yàq tey ban taxawaay ak naka la war a jullit jullit bi dundee euh, lu ni mel te fekk dara du yàqu diggante ak moroomu jullitam dëkkandoowam ak euh, ñu mel ni ñooñu. yàq moom islam def ko très santaane ko dawante bi tamit islam santaane ko au contraire sa mbokku jullit bu nga xam ne dafa jaaxle. te nga war a ñëw jege ko dalal xelam jàppale ko loolu nga mais soo ko dawee su ko dawee fan la jëm wax ma la koo jul mbokk mais ko bokkal koñ wala boobu koo bokkal kër su fekkente ne daw nga ko fu fan lay kii fan lay kii nit ñi tey garaba yéen a ko wax su fekkente ne daw nga fan la jëm da ngay bu si des al insaan aajizun bi mu mufradi muslimin ma xayri kenn nit rek rek rek mënul dara suñ la bàyyi sa bopp rek ka ngay ne yasar doo dem fenn mais su fekkente ne lëkkaloo look ñeneen boole na mbokk am na lu ñu dugg rek soobu rek yàlla dana si fekk ndax yadullahi ma aljamaa kattan yàlla bi dooleem bi mbooloom mbooloom la ko def ah, aljamaatu rahma mbooloo yërmande yàlla la dañu kon nag ñëpp war a booloo ni ngeen lëkkale ko EMAD ak plan international vraiment yeen ni ngeen def su fekkonte ne am na ñeneen ñu dolleeku ñu si yéen wala ñeneen ñu def noonu di def ni ngeen di def li amaana mbir mi danañ ko gaaw a gañe yéen tamit réew mi FM ñu leen sant di leen gërëm ndax li ñuy waxtaanee fii ci biir fii lañ koy waxtaanee fii lay yem mais yéen a ngi koy yóbbu ba Sénégal gi yëpp dana si mën a jot adone bi yëpp dana si mën ndax yéen ñi loolu tamit yéen a ngi def seen devoir yéen a seen def liggéey di def euh, ci ci participation ci mbir mi kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla. yal na leen yàlla yokk ba ngeen yëg ko jaahi nabil mustafa sallallahu alayhi wasallam natt la boo xam ne yàlla moo ko indi ci kaw suuf kon nag gannaaw noonu la ko yàlla defe amoon na yeneen yu jiitu woon am yàlla xam luy ñëw kon nag lii dañuy war a góor góorgóorlu rek ñu jëfe li nga xam ne moom la borom xam-xam yi wax ñu jëfe ko suñ ko jëfee rek yàlla dinañu fekk si loolu suñ àndee ñun ñëpp rek ñu jëfe amul benn sikk sàkk yàlla dinañ fekk ci loolu mu dindil ñu ko mu jëlee ko fi. jërëjëf imam xam naa fi la ñuy yemale waxtaan wi xanaa bàyyi la rek nga tàggoo ak xëy na euh, boo amee loo ci bëgg a wax loo mujj muy sa kàddu. Euh, sant leen gërëm leen xanaa dellu di leen sant waat di leen gërëm di sant euh, kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fi ñoo ma fi teg commencé ko si Thierno Mouhamadul Madani ak imaamul akbar Thierno Saïda Nour ñoom laa fi wutu tey. ñoom ñu fekkoon Thierno Seydou moom ngeen fi fekk xëy na dana gën a yar dana gën a law dana gën a euh, moom moo gën a maîtriser mbir mi. waaw euh, di sànni appel rek ci ci doomu aadam yi bépp sénégalais bépp sénégalais wala bépp nit ci kaw suuf na nga góorgóorlu nga bañ a caaxaane ñu bari ko fu ñàkkal fayda bañ koo fuuyal. nga taxaw si sa kemtala nga def si sa jaamu yàlla la jaamu yàlla la mu des nag jaamu yàlla bi dafay ëppanti parce que yéen li ngeen def tey soo leen desoon seen kër biir kër rek ndax ragal lii ndax moom bañ mu law yéen a ngi jaamu yàlla le fait que ngeen génn tamit di sensibiliser nit ñi di leen waxal ñoom di leen euh, soññi ci nu ñu moytoo loolu tamit jaamu yàlla la kon nag ku nekk na fexe jaamu yàlla ci mbir mi tuutiwul lépp loo si jaamu yàlla rek yàlla moom mooy alim mooy dara ump ko ci l'essentiel na yéene bi sell rek la ngay jëf na sell soo jëfee rek su su sellee rek yàlla subhaana dana dana si bindal ay tiyaab kon nag yàlla nañu yàlla dolli sutur musal nu ci mbas mi génne ko ci Sénégal génne ko ci àdduna bi wërngal këpp jaahi nabil musa san ñu bañee wax na léegi mu ne léegi sénégalais dañu kaay yi dafa wàññeeku dañu bëggoo ñoom ñu ñu ñu ngi sentir ñu ngi commencé tayal di commencé kii au contraire dañu war a góorgóorlu parce Mauritanie bi demoon na ko jeex fa siin yooyu yëpp ah. siin kay demoon voilà boobu mais ñëwaat mais ñun su yàlla fekkee affaire may nañu ñu mu wàññeeku dañu war a góorgóorlu fañ jàppoon. Mm-hmm. nañ jël dolli jàpp foofu wala gën a yokk suñu su su suñu suñu suñu fañ jàppoon. fi ba mu jeex sax war tax ñu bàyyi. Mm-hmm. war tax ñu bàyyi nañ gën a góor góorlu yàlla nañu yàlla dolli sutura yàlla nañu jàppale ci li ñuy xeex ñu ñu gàññee ko ci àdduna bi yëpp mu génn fi jaahi nabil musa sallallahu alayhi wasallam di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay fii ci bërëb bi bërëb Ceerno Saïda Nour bërëb Ceerno Muntaqa Ahmad bërëb Cheikh Omar al Fouti radiallahu taala anhu ngeen ñëwoon fii pour jaamu yàlla jaamu ko mbokk yi jokkoo mbokk ñu ngi leen si sant di leen gërëm comme ni ngeen ñëw ci kër diini yëpp alhamdulillahi rabbil alamin hada wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaam wa rahmatullahi wa barakatuh imam Aliou Sow ñu àndoon itam ak al Ba di point focalu euh, EMAD ak plan international euh, ci Rebeuss al Ousseynou ma itam nga tàggatoo ak auditeurs yi rek euh, xëy na sànni sa kàddu gu mujj xanaa di remercier imam Aliou Sow di remercier kilifa diine yi nga xamante ne ñoo ñu dalal fii di remercier Laasana bi nga xamante ne bi affaire bi commencé ba léegi moom si plan si EMAD la bokk musul taay saa su ne mu ngi may woo confiance boobu noonu waa EMAD am lëkkaloo ko ak waa plan ñi leen di jaajëfal bu baax a baax parce que ñoom ndaw yi la ñu gëm parce que dañuy jàpp ni ndaw yi ñooy nettali ëllëku suba waaw lii xewoon mbas bi ndaw yee koy nettali moo tax di leen jaajëfe bu baax a baax si liggéey bu am solo bi nga xamante ne ñoo koy def yéen tamit waa réew mi FM di leen jaajëfe parce que yu mel nii émission yi bu koy nit yi di déglu dinañu gën a mën a comprendre quoi loolu dafa am solo bu baax a baax di terminer di wax sama mbokk jeunes yi nañu gën a bàyyi xel ci feebar bi parce que réew yi nga xamante ne ñëpp dañoo respecter mesure barrière yi feebar bi dafa daw waaw kon nañu bàyyi xel ñu respecter mesure barrière yi nga xamante ne moom la ñu digle buñ ko respecté rek maanaam feebar bi dina wàññeeku bu baax a baax di leen gërëm di gërëm ñëpp di kontaan si yéen yàlla na leen yàlla defal jàmm. jërëjëf Al Ousseynou Ba di point focal def liggéey bu am solo ci rëbës euh, ak li ko wër ni ñu ko waxee sànq euh, ci cadre euh, point focaux yi nga xam ni EMAD ak plan international samp na ko xanaa dellu ñaaxaat sa mbokk jeunes yi rek ñoom itam bu weesoo respecté geste ku ci ne jàpp ca fa nga nekk jeune bi di sensibiliser moromu jeune am ku nekk sa kër nga nekk fa point focal nekk fa message yi fee di jottali xibaar yi war ñu tëj ak yow Lassana Sagna secretaire général EMAD euh, nga xëy na clôturer waxtaan bi muy cinquième numéro ànd aar aaru waa di leen gërëm yéen waa réew mi FM ci seen euh, taxawaay ci seen liggéey euh, principalement yow Fatou Thiam euh, président moom mooy woon yi léegi moom laa coupé xamul woon ni ñu ngi ci kii vraiment ci émission yi ñuy def yëpp vraiment c'est des émissions qui sont très très très portées pour seede rek wax ni barki démb rek président mu ñu naan ma grand sëriñ de Dakar Abdoulaye Matar Diop daf ko woo téléphone ne ko président parce que dafa aalo woon ndax lancement bi ah. moom lañ ko defandoo woon ak directeur Pran mu ne ko président mu ne ko waaw mu ne ko programme EMAD ak plan conseil des ministre moom lañ jël comme exemple parce que bàyyiwu leen kenn da ngeen dugal xale yi dugal mag ñi dugal autorité autorité euh, religieuse yi autorité coutumier yi bàyyiwu leen kenn te li gën a neex nit ñi li gën a neex ministre bi mooy da ngeen ko jàllale ba banlieue donc loolu bu la ko kilifa waxee te yaa ngi doon liggéey ci fu gàtt rek ba moom mu yëg ko ah da lay gën a yokk cawarte yu président waxee loo mu a ah léegi on n'a pas droit à l'erreur ndeke kon booy def mbir ba kilifa gu mag bi di ci bàyyi bët ah ba ñu koy waxtaanee foo nekkut bu la ko kilifa jottalee loolu mooy na nga gën a góor góorgóorlu kii sa liggéey donc dañuy tax rek ñu gën a góor góorgóorlu ci liggéey bi di jaajëfal waa rajo bi bu baax a baax a baax a baax xam naa dañ defaat yeneen émission di jaajëfal euh, imam Alioune Sow vraiment ci dalal gi mu dalal ci kër gi mu nekk lu important day wari nii rek Sénégal benn bopp la këri diine yëpp amul frontière ñëpp ay mbokk lañ ñëpp jaamu yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa moo di tax a jóg donc yàlla na fa yàlla jëlee feebar bi yàlla na ko yàlla delloo feebar bi fa ko làkkoon ba kenn gisu ko yàlla na ko yàlla delloo ci barke suñu mag ñi suñu barke suñu baay yi suñu barke suñu kilifa diine yi jazaakallaahu xayran jërëjëf Lassana ñuy nuyu bu baax président Abdou Khadre gay di ko ñaanal jàmm di gërëm aussi waa ay EMAD ci confiance bi ndax rajo yi bari na bu leen neexoon ngeen dem ci yeneen rajo waaye ngeen tànn réew mi euh, ñun itam dañu ciy was lu àq bu weesoo xëy na euh, li ñu lëkkale euh, ku ci ne itam am nga ci wàll te itam rajo bi wax dëgg yàlla noonu la ci amee wàll ndax ay Sénégalais lañ réew mi lañ wax boo tuddee réew mi nag réew mi la war a ñor ku réew mi ñor itam lu dal ci kaw réew mi yaakaar naa ne war nga ci taxaw te xam naa ne itam service commercial euh, à travers Mbène Femme noonu la ci taxawee euh, DGA itam euh, mustapha Diop taxawaay boobu la ci am président Mbagnick Diop itam taxawaay boobu la ci am yaakaar naa ne itam ñi ngi ciy bay seen waar bu baax a baax ñu leen di gërëm delloo leen gërëm li ñoom ndax man ndaw dong laa ñu yebal ma <laughs> ma war cee def itam li nga xam ne moo ma ci war bu weesoo loolu itam kóllëre dox suñu digganteeg EMAD ndax Abdou Khadre bu weesoo xëy na santé bi ak Euh, culture bi euh, nit la koo xam ne ku xam-xamam màcc la ci yu bari ñun itam ñu koy yittewoo bu baax ci rajo bi te wax dëgg yàlla mosuñoo gàntal fu nu ko soxlaa mu taxaw ci suñuy mbir lu nu mel itam bu amee même bu weesoo sax collaboration bi ñuy am ak moom ñun yoon la ñu ñëw bay ci sunu waar te itam yaakaar naa ne du fi yem ak yeneen ak yeneen mbir yu ngeen di yëngu danañu ci ànd ak yéen incha allah ñu leen di gërëm yéen ñi doon déglu itam euh, mbokk yi dellu gërëm imam Aliou Sow bu baax a baax ak euh, kilifa yi nga xam ne ñoo toog tey ci ndakaaru toogal fi Seydou Nourou Tall toogal fi Cheikh Omar Foutiyou ñu leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàggal leen fi ñi fi des ñi fi jógee itam yàlla yeesal yërmande yokk leer ci ñoom ñuy gërëm bu baax alxuseynu laasana Fatou Thiam nga moo ne woon ci kàddu gi ñu dig leen daje beneen dimanche incha allah ci juróom-benneelu numéro ànd waxtaanee mbas mi euh, du ñàkk ak euh, yeneen i kilifa ñu yendoog jàmm